Bye. toujours dans votre acte du jour de ce 13 novembre 2024 une fa jógee nañu vidéo boo xamante ni moom mii di l' premier ministre leader au parti Pastef tête de liste li nga passé ni mooy Pastef ci élection législative yi cadre yu mu je crois que du cadre du xamante Madame de dafay jox respect ki nga xamante ni la Sénégalais yi tànn jox ko 54 euh, suffrage universel direct mu donne le président de la République du Sénégal mu war mérité beaucoup de respect mu war garantir les plus institutions tey su ñu ba premier ministre am défier je crois que mon ci boppam moo woon yoon bi tey

moo wax ko bureaucrate yi nekk seen bureau ñoom ñëpp am na loo xam ne yéen ñëpp yéen ci ngi ciy seen bët suñu révolution bi c'est pas des bureaucrates ñoo koy yàq parce que bi ñuy nekk ci naaj bi di xeex bi ñuy dóor bi ñuy dóor di ñu duma bi ñuy tëj kaso ñoom kenn ci ñoom nekk woon fii yéenu xeex kon duñ leen mës a demandé loo xam ne jalgati yoon la waye ku jalgati yoon ba mu ne fang ñu bëgg ko nëpp nëppal wala ku ñu waroon condamner 6 mois wala 1 an ñu naan ñu ngi koy jox ay 10 jours ak 15 jours loolu day favoriser l'impunité dans un pays mënu ñu ko nangu ku yor ay ngannaay di dal ci kaw nit ñi ñun xam nañu suñu capacité police ak gendarmerie su amé ñu ko xam moy ñun Pastef ñun ñi nga xam ne

d'anticipation ba nga xam ne képp ku jóg ba nga def naka sunu noonu ñu teg loxo ci yow tey kon ñoko ko déggandoo mu waat ay kàddu yo xamanteni yëkëti nako di avertir ki nga xamanteni moy le président de la république Bassirou Diomaye Faye di ko naan trop bon trop con je crois que képp ko xamanteni ya nga bëgg diriger li nga xamanteni moy réew da nga wara am ben apaisance am nit taxaway bo xamanteni mom ngay taxawé manam ndey ji révolution biñu révolution révolution boo révolution, ci révolution bo xamante yow ya ko wax dig sénégalais projet bo xamante batay ji tey leen projet tiga leen livre bo xamante ni mooy solution indiloo leen solution révolution bo xamante ni lépp loo xamante xew na ci yow ya taxaw diggu arena nga ne da nga doon tappale dara du ci dëgg sa stratégie la je crois que sa bopp ngay nax tey soo nee ay bureaucrate duñ la ko yàqal donc ce qui veut dire que rek toujours y a des discours yoo xamante ni ñi ngi génn ci làmmiñam en tant que chef de parti mu doon ay discours yoo xamante sénégalais yi ñoom ñoo ko war a mesurer xam nañ que kii pareegul pour am benn responsabilité pour maintenir li nga xamante ni daal mooy la paix et la stabilité dans sa pays su demee ba ne tey jii am ay nit yo xamante tay luñu leen waroon tëj donc la justice elle est indépendante ñom ñoy xol kuy def ak ki deful ndax ndaxte dañu am code pénal am procédure code de procédure pénale donc ñoy ñooy délivrer ndaxte tay su waxé ni ka amna ay nit duñu ñu waroon lu upp ay 6 mois ñu tëj leen 15 jours donc c'est le cas de Ahmed Ndoye donc ce qui veut dire que tay li nga xamante moy libération Ahmed Ndoye quinze jours yi nga xamante dawal nako défaut sans permis comme luñu tejé won woon kii di Sidi Diop ak kenen ki nga xamante moy mooy le jet setter tay loolu lu ñu condamné ki nga xamante moy mooy Ahmed Ndoye kon selon sagom Ahmed Ndoye day de 6 mois de prison donc ce qui veut dire que rek dafa am loo xamante ne tey sénégalais yi ñoom ñoo ko war a seen bopp parce que nee naa leen. bu tey la mu def rek moom la sañ ba de xéñ ndax té mom mo a yëkëti kàddu yi donc suñu gisee Abaat Fall yëkëti yene yenn wala Babacar ndjay diko yëkëti du bett ben doomu aadama